salaamaaleykum mbokk internetu dakarnet.com euh, tey nag Cheikh Baye Ibrahima Niass ku ko xam-xam ko ci wàllu euh, ci wàllu sëriñ kàngam la ci euh, am na benn tournant ba mu defoon Nigéria presque xanaa képp ki kàngam ci wàllu seetkat mi ngi fa woon mais moom moo jëloon raw gàddu gi duñ def rek lu dul jox ko micro bi mu nuyoog mbokk internet di ngay seetaan après ñu di ko moom ci waxtaanee sëñ Baye Ibrahima ñas ñu leen di di la ziar. alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala wala alihi wa sahbi wa sallama tasliman mbokk mi ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu mbooleem ñu ñuy seetaan si réew mi ak si réew di yàlla jotaay bi ñi jëmmal yàlla wane si xam ak dégg ak topp bisimilah. waaw mi ngi noonu kooku mooy Cheikh Baye Ibrahima Niass duñ defee du dugg moom waxtaan ak moom euh, dañoo gis dégg ñu ne da nga demoon euh, Nigéria gañal fa ay tournoi bu mag yow nga gañe ko ci wàllu seet est-ce que mën nga ñëw diggalaatal ci loolu. waaw alhamdulilah ñu ngi santaat yàlla bu baax di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu du tey lañ ko soog a gañe sax si wàll seet yemun si ak doomu aadama boo xam ne yaa ngi mbiru yaa ngi yëngatu si mbiri ñaan mm-hmm. boo xoolee en 2014 si laa waxoon ne ku foto sa loxo ndeyjoor bii nii boo ma ko yónnee man Cheikh Baye Ibrahima ma wax la li nekk si yow yëpp mm-hmm. ma jaaraat foofu ne bu ma nit tegalee ndox ma wax la li nekk si yow yëpp loolu yëpp nag bi mu amee ma jëflante ko ak nit ñi def ko yàlla wane si ay fekke fekke yu kawe loolu dugguleet si ñun bu fekkee senegal quinze millions de personnes la set millions yëpp seetal neen leen ñi gis ñu ñi xam ñu ñi nekk nit ñoo xam ne nag suñ la seetalee lépp luñ lay wax dafay méngoo ak sa dund dafay méngoo ak sa bopp xam nga ñaan yàlla bëri na ñun ñu koy dawal di ko uti mais réseau ñaan yàlla seet la maanaam dañuy wax ni waaw seet gi mooy base bi tey jii may wax ak yow nii sax tey fu nit mën a nekk tey buñ tegee ndox mën neen laa wax say soxla yëpp lan la. ndox kase ndox kese rek parce que doomu aadama bu xëy dana utiliser ndox te doomu aadama fépp fu mu yeewoo rek ndox nga ko wër. Hmm. doomu aadama fépp fu mu yeewoo rek ndox mi ngi ko wër. li waral loolu nag nit ñi dañ ko war a xam surtout sama mbokk sëriñ si parce que des fois nit dina ñëw ak yow si benn méthode te fekk yaram bi boo ko seetut nga jox ko gàllaaj yaa ngi koy lor ndax loraange dafay jiitoo aussi nga ñàkk xam bidd wi nit ki nga jox ko gàllaaj d'accord xaaw xaaw mu dikk foofu tuuti parce que euh, euh, gis nañ ci ay yenn maara yoo xam ne mm-hmm. ñoom aussi euh, seen client dañuy jooy loolu ne des fois da dem ci sëriñ du xam sa biddiw bëgg a liggéey est nit ki euh, boo xamul biddiwam mun nga ko liggéeyal. waaw nit boo xamul biddiwam doo ko ñaanal yàlla ba pare bëri na yi si ay nit sëriñ ñoo leen tëj am na ñoo xam ne tey dañ la wax na la. Mhm. bi may ñaa dem di ñaan lu ji yàlla si laa ëpp ay jafe-jafe. bi muy dem di ñaan ah. waaw am na ñoo xam ne dañuy jël ay millions def ko si gàllaaj si la ñuy ëpp jafe-jafe. lu tax nag ñi am jafe-jafe bi des fois sa biddiw bi dafay fekk rawaan mi ngi si laxasu bu ko waa ji isaabee bu la joxee gàllaaj rawaan bi day jël lu baax li bàyyee la lu bon li mooy waral da ngay gis ñoo xam ne dañuy sangu bu bëgg a dee duñ gis dara surtout nag ñu nekk bitim réew ñi muy gën a dal nag mooy ñi nekk bitim réew mm-hmm. parce que lu tax loolu di leen di dal mooy a chaque fois dëkk bi nekk foog sëriñ bi xam ko isaab ko tolloore ko ak dëkk bi jox leen gàllaaj ñu sangoo ko des fois sax sëriñ bi bëgg laa nax na la GP bi ko doon indi moo am sobe. amee ah, naa tey pourquoi mu bari ci affaire marabutage. mënta ñàkk ci métier tey boo demee ci marché bi sax da gis nit koo xam ne ubbi na bitig boo xam ne spécial pour naxaate la. Mhm. waaye gis nga mbiri sëriñ tey la gën a dëgër tey la gën a nekk. Mhm. tey la gën a nekk nit ñoo xam ne tey dañ lay wax ne la lii mooy am loolu mooy am. Mhm. lii du am lii du am. àddina bi ba tey seen jonn ak yàlla ma lay wax nii tey tey la nit gën a ma ñaanal yàlla nit gaarante ko mu ñëw lu tax man ma ñemee jël cangatu alal di ko gaarante nit. parce que damaa xam fi may jëlee cangat gi waaw hmm. dama koy garanti nit parce que damaa xam fi may jëlee gàllaaj gi lu tax ma ñemee jël ndomba gi melas gii di ko garanti nit parce que damaa xam fi may jëlee gàllaaj gi loolu yëpp nag bu ko nit xamut dafay laxasu di lamb lamb di làmb làmb ba dajeeg ñu koy tëj hmm. te la plupart time boo xoolee ñu bëri dañu la wax na la bàyyi naa sëriñ wala sëriñ dootuma waxati saraxeel ma sarax mais loolu yëpp dañuy hmm. dajeek ñoo xam ne dun sëriñ soo amut gàllaaj da gaaw a mën a defal nit dara mu gis ko te fekk nit ki nga commencé ko yuuxu fekk du sëriñ. Mhm. ñaata nit lañ doon jox ay tur ndax léegi déggati nga leen déggatoo si kenn. parce que lañ nekkoon du dëgg. dëgg la mhm. mais gis nañ fi loo xam ne jaaxal nañu nga yëkkat ko sànq mi nomba meles bi. waaw est-ce que euh, dooñ ci dikkalaatal tuuti nomba meles bi naka lay. waaw nomba gii meles la tudd nomba gii boo koy takk da ngay am alal da ngay am alal da ngay ubbeeku dangay ngay am wërsëg. te doomu aadama lépp lum lay fexeel du egsi si yow gàllaaj la rawatina ñi nekk bitim réew sax ñoo koy gën a ittiwoo. mais lii boo ko takkee est-ce que lii boo koy takk. waaw amut nit kuy taxaw si sa kanam. daf lay aar 200 mètres ci kanam ak 200 mètres ci gannaaw ba pare ñaareel bi nomba gi moo tudd meles lépp lu xeetoog lu bon luy ñëw. Mhm. yow doo ko fekkee. te mhm. ñaareel bi da ngay am xaalis xaalis daf lay ñëwal far fos. parce que dañoo boole juróom-ñaari garab yi gën a tësi àddina liggéeyee ko ko. Hmm. li mooy kaaraange gi gën a piir gi ànd ak bàyyi ànd ak wërsëg ànd ak lépp. Hmm. xam nga kaaraange ñu bëri dañ koy wax mais xamul luy kaaraange. Hmm. kaaraange mooy loo xam ne fépp fu musiba di ñëwee yow doo ko fekkee. doguma la sax mais bi ñu gisee ñu ne Nomba Meles euh, ñi ñi ñi ñoo xam ne seen dégg-dégg matewul. buñ ko takkee ñoom dootuñu dem wala wala bu fekkee problème moo war a am. Euh, waaw melas boo koy dégg mooy yëfi problème. d'accord comme nga nekk foo xam ne dafa liggéey te li ngay liggéey óorut. wala nga nekk nit koo xam ne óoluwoo sa bopp si réew mi nga ne boo demee tey Allemagne Suisse. Hmm. Italie Angleterre réew mi dafa am ñoo xam ne dañ fay nekk dañ leen wax ñi génn réew mi. Hmm. jox leen ay kayit léegi nag suñ mënt génn réew mi dañuy tafu. Mhm. dañuy liggéey di tafu léegi nag lii boo koy takk yow pëlis dootu la lijjanteeti te da nga ne si réew mi te da nga am jàmm ba pare ñaareel bi lépp looy yëngatu loo xam ne óoluwoo si sa bopp yàlla mhm. dana la si muccal d'accord la doon am si mag ñi ba tey mi ngi am waaye nag yow mi ngay yow mi ko uti yow yaa dajee gut ku la ko jox mhm. mooy comme tey nit ki ne la dama am problème yi ubbeeku ubbeeku mooy nit ku tëju da ngay gis ni ñoo xam ne dañuy tëju rab mënuñoo am dara lu luñ am mu dem lu ñu yóotu duñ si jot soo ñëwee tey si fii nii si cabine bi tey. Hmm. dañ lay jox ay garab yoo xam ne da koy sangoo yoo xam ne day toj sa yaram li si nekk. Hmm. danaa xamoo doomu aadama yàlla bindut ko muy jafe. muy jafe waaye doomu aadama bu ko làmmin ak cat jiitoo dafay jafe. Hmm. moo tax à chaque fois dañuy wax ndaw bu xasee sotti. bu commencé sotti baaxut. bu gàttut fan dafay dee. léegi nag boo ñëwee fii loolu yëpp dañu la koy bolekeel kanaa mhm. xamoo bëri na ñu ne si bureau yi di liggéey dara jàpp leen lu dul làmmiñ ak rab. làmmiñ parce que liggéey mhm. entreprise yi dafa bëri xeexante. Mhm. man su ma la jiitoo si dara dinaa xeex pour nga wàcc sa place ma yéeg fa. ñun nag Sénégal benn méthode lañ amee mooy dañoo gëm ne ñu ñëpp. Mhm. benn affaire rek lañ mën a doxal mooy ku sa morom nekk si place nga jëlee ko fa teg fa sa bopp. Mhm. man nag pour ma man la teg sama bopp. Mhm. foog ma am kaaraange gu dëgër. nga xam ne man lu ma yóotu dama koy jot. lu ma soxla dama koy am. loolu yàlla may nañu ko ñun. mais sa client lay seetaan baa bu ba baa ñoom bu ñu ñëwee affaire bu du seer. non xam nga ku xam Cheikh Baye Ibrahima dana xam ne Cheikh Baye moom alal tiitalu ko man alal tiitalu ma. man ak nit ñi ñoo bokk. Mhm. man ak clients yi ñoo bokk. Mhm. ndax clients yi ma am 2014 jàpp 2013. ba léegi clients yooyu laa amoon. Mhm. ba suñ joon ak yàlla tey ñi may ñaanloo yàlla di ma jox xaalis dëgg. xamante naa ak ñoom fukki at ak nàngam. te bi may ànd ak ñoom mënuñoo am cent franc. man kóllëre laay àndee ak nit ni may waxee nii si tele laay waxee ñu bëri ñu may seetaan deneen xam kuy Cheikh Baye. bëri na sax ay sëriñ yu may oo téléphone di ma wax na ma yow da yàq ñaan parce que man. Mhm. lu nit jafe-jafe jafe lu nit am jafe-jafe su ma la mënee dimbale dama lay dimbale. parce que dimbalewuma la pour tay de dama lay dimbale pour en ëllëg bu ñu dajee mu mën a rafet. man noonu laay dundee ak nit. moo tax mhm. amul daray àddina lu ma tiital. Mhm. nomba gi nag bu koy nit di soxla dama koy wax charge bi koy jël. parce que lii donoon la waa lii dafa am donoon la hmm. dafa am bu buñ koy jëlee charge boobu ku ko nangu rek ndomb gi ñëw sa loxo est-ce que mënuñoo xam charge non loolu du lu ñuy wax média wala lu ñuy wax télé parce que tettal la rek benn tettal buñ lay jox la rek ne moo koy weexal mhm. loolu la mhm. mais aussi tamit gisaat nañ ci beneen ndomb tamit bëgg na nañ tamit nga jox waaw bii deri yeew la deri yeew waaw deri yeew képp ko gis yeew di nga xam ne li yàlla bind yëpp yeew moo si gën a yéeme mhm. moom lépp lu muy lekk daf koy wan na ba pare. Mm-hmm. soog koo reesal maanaam yeew du yëy day wan na. Mm-hmm. mën naa wan na tey mën naa wan na tey béy ba béy bi dugg si biiram bi. si mm-hmm. la koy commencé di fudd di ko lekk si biir butitam yi. d'accord nomba gii nag boo koy takk nga nekk fu danger. da ngay fudd comme yeew dem sa yoon. nomb gi tey boo naree am problème day ku nekk jaan wala mu nekk dara. su ma la déggee foofu ñun euh, bi ñu xoolee ci sa nombre meles bi ak li ñu expliqué yow daal danga taxaw pour aar jaam yi. waaw dañu taxaw pour aar jaam yi. Mhm. taxaw pour dimbale jaam yàlla yi. dëgg la. àddina boo si nekkee yàlla di la may xam da ngay dimbale jaam yàlla yi. Mhm. jaam yàlla yi nag pour nga dimbale leen foog nga leen di wax lu ñu dégg. Mhm. si wàll seet si wàll ñaan si wàll jëflante. li nga fi gis ni yëpp mbind la lu jëm si wàll yaram la pour luy ubbi doomu aadama yi. Mhm. te ñun doomu aadama boo tëjoo ñëw si ñun foog ñu seetal la soog laa ubbi. Ah. rawatina sax nga soxla këyit si dëkk bi gën a jafe nga xool. këyit boobu ñun duñ ko négocier te jotuñ te joxuñ la ko te si bis yi néew sax lañ la koy jox. Hmm. te buñ joxee nit càngat dañ koy wax ne ko bis bii bu dëlsee boo gisul dara si càngat gi ñëwal ñu dooloo la sa alal. garanti. garanti ñu am mais loolu ñu koy def bariwul fii non nit ñi ñemuñ koo def man damay ñaanal ay américain te si garante laa leen di ñaanal yàlla. ne leen di euh, fii ak diir di ngeen gis. dara fii ak diir liy sotti liy am liy am liy am nga di ko teg sa bët ba mat sëkk. parce que dañoo jàng alxuraan xam lu ñu si yàlla wax ñu di ko jëfandikoo. jàng yeneen xam-xam yoo xam ne si àll bi lañ ko jëlee ñëw xam ko. Mm-hmm. toogoon tuwoon si média di wax. Mm-hmm. am na lu ñu yàlla imposé. Mm-hmm. man damay wax ne lépp lu ma doon wax Sénégal man maa ngi koy gis. coow li am tey nii. Mhm. avant ñuy wax plainte Barthélémy Dias bi Barthélémy Dias ne dafay jouer candidat. Mhm. am na oo naa nit na ko Barthélémy bu jouer candidat danañ ko oo procès tribunal te projet bi du antu dañ koy oo ba mu départ di dem coow am ñu annuler projet bi te lii nit xamu ko. Hmm? lan laa la wax ci oto bi léegi. njiiti réew mii ne ci réew mi nii. Mhm. ñun dañ koo dooleel ba mu nekk président. ñu xëy gis ci ñoom ay jikko yu salte ñu baleen. seeni alal ñun tiitaluñu. d'accord man ku ma xam boo demee sama vidéo yi da nga xam ne ci président bi rek laa daan wax. Mhm. waaye soxlootuma ko. Mhm. ndax bëggatuma ay mbiram. président ci boppam soxlatuma ko gisuma lu ma si soxla ci moom. Mhm. parce que en 2007. bi muy toogaat. ci laa wax population bi yëpp na leen diw mooy toog ma di ci dégg lu ne. nu nga décidé ba yow boobu nga choisir ko ni moom mooy toog boobu. lu tax ma choisir ko dafa dem premier mandat mu métti lool ñi war a defaat deuxième mandat bi man ma ne diw mooy gagné. Hmm? mu métti lool te bi ma koy wax maa ngi ko wax sept mois avant élection yi mu metti lool nag vidéo yaa ngi ci internet mais léegi après loolu yëpp euh, bi nga nee jaar nga fa ak moom mais bu affaire yi sottee xanaa woo na la. noo ñun suñu ànd ak nit dañuy ànd ci buntu yàlla. Hmm. xam nga tey. yàlla daf ñuy dimbale ba nga xam ne ñun duñ ànd ak rancunier ñun duñ ànd ak kuy fayeeku kanaa mm-hmm. xamoo président bi toog nii dafa dafa dafa def loo xam ne Sénégal seetluwu ko sax dafa jël ay nit may leen tur mm-hmm. dooleel leen te si politique am la waaye moom kenn kese bu tegoon fi mu war a tege kenn du jamoorloo moom comme nii mm. waaye daj daj booy ànd ak nit da ngay ànd ak moom te yàlla tax ñaan yàlla yàlla may nañu ko état bii. nguur mm-hmm. gii nii. Mm-hmm. am na ay kilifa yoo xam ne ñun ñoo leen di ñaanal yàlla. te luñ mm-hmm. leen wax suba ba ngoon jot dañ koy gis duñ doy. man démb wax naa benn kilifa na ko. renvoyé leen àtte Barthélémy Dias bi ngeen bokk mu dem lu ko moy dëkk bi dana tàkk. waxuma ko ngir dara. Mhm. parce que ñun ay sëriñ lan dañu toog guddi di ñaan yàlla di xam li réew di xam li ne si àddina bi. Mhm. di xam Sénégal li fi nekk lan la. Mhm. ba pare moo tax loolu taal ma wax toujours rek dajee naa ak yéen waxuma leen na leen. na na na ndaw ñi dal. dëgg la parce que lu tax ma wax leen loolu ñun xam leen réew mi li fi nekk. mais que dañuy jaamu yàlla mais mais dogguma ah, la sax mais aussi tamit dañuy comme dugg nga ci actualité maanaam ci wàllu politique dañ ciy waxtaan. naka nga gisee élection locale yi di ñëw. dana doon élection yu salte parce que violence bi commencé dana doon élection yu salte laa wax locales yi bi ñu ko jàppagut mhm. laa njëkk wax nit ñi ne leen élection locale yi am mhm. mooy gën a doy mooy gën a doy waar mhm. élection yi fi mës a jaar yëpp locale yi nga gis nii mooy gën a doon élection yi gën a salte mooy gën a doon élection yu gën a bëri fitna locale yi moo koy doon aussi ñu gis ay convoi ñoo xam ne accident yi dafa bëri parce que ah. dañ leen di sacrifice dañ leen di sacrifice parce que ñun nguur pour ñu jot ko foog ñuy rey ay bakkan amut sens nañ ba fitis fitiskat yi ñu ñaan loo yàlla euh, bu ñu déggee sa dégg wax kon yaakaar naa accident amoon ci Ousmane Sonko tamit. yëpp euh, ay yëpp ay affaire la rek loo gis si àddina rek si Sénégal lu fi xew yëpp ay affaire la rek. moo tax ku fi nekk damal nga uti ay kaaraange daf ko sa yaram bi nga mucc. Mhm. Sénégal pays Afrique yëpp ñu koy jiite ñëpp duñ doyal nguur. Mhm. président africain bu doyal nguur mos nga koo gis bala moo dem rek foog mu salteel nguuram mhm. parce que lu waral loolu mooy du doyal xamul ne nguur dañ koo war a doyal nguur dañ koy doyal dafa am foo xam ne boo fa tollee si nguur da nga koy doyal mhm. nga xam ne yow mii jiite nga yàlla jeexal na jeexal na keneen ñëw keneen ñëw mais chaque jour leneen lu bees di am loo xam ne yow daf lay ragalloo chaque jour ngay gis loo xam ne doo xam fan nga jëm ñun dañuy jaamu yàlla kenn fayuñu dërëm pour ñi ñaanal Sénégal. Mhm. parce que lu tax ñuy ñaanal Sénégal dañoo bëgg seen réew mi moo tax ñu koy ñaanal. nit réew mi ngay yeewoo. Mhm. da nga koy bëgg di ko ñaanal ndax jàmm di fa sax. Mhm. tey kun xuri rek sa mbokk la. moo tax nag loolu yëpp nag bu amee dañuy tàllalaat suñu loxo yi ñu ñëpp def ay sarax. maa ngi digal borom kër gu man mu génnee ñetti kilo ceeb ñetti kilo dugub ñetti kilo mboq mu saraxe ko. baal ñu nga baamtuwaat ko. ñetti kilo ceeb. ñetti kilo mboq ñetti kilo dugub borom kër gu ko mën a def sarax mu def ko ngir say njaboot. Mhm. pour la liñ jëm si seen kanam yàlla may ñu si jàmm. Mhm. alors bu ñu jigee foofu dañuy dem ci actualité boo xamee jamono ji nit ñi tiit nañ. Hmm. Euh, benn waay bu bu bu euh, bu rey euh, ñetti doomam. Hmm. aussi mooy mu rey boppam. loolu waaw naka nga ko gisee. waa ni ma ko gisee mooy loolu kañaan la. Hmm. waa ji bu fekkee ne dafa am lu ko naqat yi mu doon jullit mhm. dafa war a am sëriñ bu mu mën a jege. Mhm. muy waxtaan ak moom si yàlla tey dinaa la wax benn baat boo ko waxee ñu bari danoo daneen mer mhm. jàng tubaab bu ëpp baaxut jàng tubaab bu ëpp baaxut dafay dem ba yóbbu la si benn mémoire boo xam ne lépp lu lay doomu aadama di wax ci lislaam doo ko gëm li lay biibur bi di wax loolu ngay gëm. mais aussi dañoo gis ne loolu ci problème ak soxnaam la. mais est-ce que problème ak soxna jar na euh, lu mel ni. Euh, yàlla dafa wax ci alxuraan mu ne. Mhm. boo àndee ak nit ngeen di sëy. Mhm. ngeen dem ba mënatu leen. Mhm. ngeen bind sóoratu wa tiini ba naa si ngeen naan ko ngeen ko su fekkoon waa ji mi ngi déggoo ak ay sëriñ. wala mi ngi jël li boo gisee ñiy wan nit ñi te gis nga li dal waa ji. dafa soog a départ de commencé gudde hmm? am na ay minti milliardaires yu tëju seen biir néegi yi daneen xëy rayi seen doom yi te lii lii am nii nii da ko déggaat. nga ne am nga yeneen yeneen milliardaires. am na minti milliardaires yoo xam ne ñu ëpp hmm? waa ji jafe-jafe. jigéen warut a toll nit fen surtout loolu soo xasee gëm yàlla. Hmm. di nekk jullit. jigéen bu mu la toll fen jukko bu la jigéen mën a wan. bu mu tax nga sacrifice sa àddina mhm. te waa ji bu dee safara la jëm de waa ji safara la jëm ah ku ku ndax dafa xaru ba pare war yàlla jël ñetti bàyyi ma yoo xam ne xale yu tuuti la ñun xamul dara mu rey leen te it ma wax la beneen secret pour nga xam ko mhm. képp ku def ci internet ne ay mbokkam ñoo bon ay mhm. mbokkam ñu baax lan am na magam yoo xam ne ñu ngi ci quarante ans di sëy Mhm. xam naa benn magam boo xam ne fanweeri at ak ñeent. ah da nga leen xaw a mhm. xam naa leen man bu baax. samdi bi waa samdi gi nga xam ne nii waa ji ñëw na biroom. Mhm. magam bu góor tëju naa ak moom biroom waxtaan ak moom dem. bi mu posté affaire bi. rek magam oo na ko bu jigéen na ko lu tax nga def lii fekk boobu Lamine baa ngi doog mi ngi dee. xam naa boobu dagg na sididi. waaye mën naa laa waatal ci yàlla ne la mag mbokk famille bu baax la bokk. am na magam magam yi ñu ngi sëy te ñi ngi mm. bëgg a dee te dañoo sonn bay bëgg a dee te kenn déggu leen ñu ne waaju wérul ñu am ñu naan wérul dara jotu ko xel mee jotu ko dara jotu ko Sénégal bu méttit méttit amee duñ waxante dëgg mhm. gis nga li waa ji def nii man moom laa la doon yegglil mhm. soo gisee ma ne la jàng mu bëri baaxut nit da nga jàng jot ay licence yi bëri mhm. nga téye licence boobu téye ko sa xam-xam bu sëriñ bi waxee sax boo ko gisul ci téere bi nga soxla sax da naan waxu dëgg waaye xam nga lan moo ñu jox sëriñ ñu mën a gëm ay ñoom baay Niass ay ñoom Seydi Hadji Malick ay ñoom sëñ Touba. Mhm. lu tax ñu mën leen a gëm mooy bu jafe-jafe amee dañuy arrière dem delloo ko seen bopp ci yàlla. dëgg la nit boo amee lu la naqari da ngay delloo sa bopp ci yàlla wala nga dem ci sa sëriñ bi nga jébbalu. Mhm. ne ko man de damaa am lu ma naqadi lii ak lii lii ak lii nga déglu sëriñ bi lu mu lay wax man am naa koo xam ne nii lu mel nii bëggoon na koo def. dafa ah. ma daan oo huit ba huit heures si suba teel. pour wax la lan. pour di waxtaan ak man si problème yi mét yu gën a pire problème yi waa ji si jabaram. Eh. mais alhamdulilah léegi delloo si aar na boppam ba ne si jàmm. Mm-hmm. jigéen warut a teg góor fenn. fekk jigéen a lay teg si sa catu bakkan bi dan la rey. Mm-hmm. ana tey deewut. ku perte moom moom moo perte. Mm-hmm. reyaale ay moomini yàlla. te moomin yi mu rey nii nag na nga xam ne nag yàlla du yàlla de sikul si la koy gën a mbugal ndax ñi mu rey xamul dara. Mm-hmm. ba pare waa ji jigéen moo ko jur mais gannaaw ba mu dundee jigéen gi ba pare dafa yàqaat deri jigéen. Mm-hmm. ndax lim def yëpp jigéen la ko posé. dëgg la yonent bi dafa ne dee leen suturaal jigéen ñi si jukko yu baax ak si jukko yu bon. Mm-hmm. wàllu yàlla boo gis jabaram mi ngi koy wax loo xam ne mën na koo rey tey du ko rey day toog muñ ko. moo tax dafa am yoo xam ne si àddina bu xewee dañ siy waxant dëgg. Mm-hmm. imaam bu ko tiim sax di lay di am lu muy wax sax imaam boobu sax bu dee safara la jëm. kon même àtte la quoi la ko même àtte rek la. bu si nit wax wax ju rafet nañ ko bàyyi ak yàlla. lool loolu mm-hmm. yëfu yàlla la. dossier yàlla la dossier yàlla la <laughs> parce que dossier la boo xam ne. Eh. yow xamoo man xawma keneen xamul yàlla rek a xam. Mm-hmm. lim def. si jigéen la déparé. ñaata nit ñoo nekk seen néegi sëy di yéen yi di leen toroxal te mënuñ si dara dañoo toog muñ bàyyi ko si loxo yàlla. nit bu la defee lu la naqari bul deyee bul def dara. Mhm. nit du gaaw a jël ba kanam bi yóbbu ko ci xaru. Mhm. loolu yaakaar naa ne am na solo macha allah mais aussi duñ defee lu dul dugg tamit ah, ci sa wàllu liggéey parce que jamono ji gis nañ ni ah, ah, télé yi bari na. Hmm. surtout ci xale yi. yow tey jii maman yak tegtal nga ci mën a jox ak yan garab nga ci mën a jox. ci yi waaw li ñu si mën a joxe lu bari la. garabi ngóora mhm. euh, dañ si am loo xam ne dañ koy liggéey si liggéey bu gën a garaaw mhm. ngóora nag boo ko déggee mooy feebar boo xam ne moo lëmbi àddina bi yëpp mhm. ñu bëri nag dañ ñu laaj xalaat ñun dañoo jàng ñetti pason xam-xam si ngóora pason bu njëkk bi mooy naka lay nit ki di génnee si néew kàttan bi si topp mooy naka lay nit ki di bëggee sëy mu sëy parce que tubaab yi ñoom bi ñu ko jàngee ba ñëw dañoo defar benn comprimé defar ko ba pare bind ci gannaaw papier bi en danger parce que lu tax ñu bind ci en danger mooy bu nit ki jëlee comprimé bi dafay xaar trente minutes pour mën a sëy ak jabaram mm. ci biir trente minutes boobu tubaab bi dafay fen parce que comprimé bi quarante cinq minutes lay def mm. soo ko wàcc ci biir quarante cinq minutes boobu buy wàcc mm-hmm. dafay dem basi si bi nga xam ne nii moo bare ak sédditi kàttan bi mu toog foofu noonu. Mhm. mën na faa def nag ñaari waxtu yoo xam ne du bouger parce que dafay jox rein bi effet secondaire. moo tax nga gis ñu bëri bu ñu am néew kàttan seen saw dafay xasaw wala muy tàng jër. Mhm. wala ñu toog parfois di am problème yi naq guy métti. Mhm. ñun nag bi ñu jàngee ba ñëw. dañuy ne naka la ñuy def ba nit ñi bàyyi comprimé tubaab bi. ñi créé ay garab yoo xam ne si réew mi lañ ko liggéeyee lépp si réew mi lañ ko bàyyee. kon su ma leen déggee day ngeen yaakaar ne kon ñeen tubaab yi mënul leen ci wàllu ngóora. tubaab yi mënul ngóora sax parce que seen ngóora dañ ko raxante ak ay dorog ak yii. Mm-hmm. ñun nag si leen jàng ba defar benn gàllaaj boo benn xam-xam boo xam ne. Mm-hmm. garab koy booleek meew te meew mi boo koy booleek moom lu gën a tuuti lu muy faj sax ngóora moo si gën a tuuti. Mm-hmm. dafay fajaale cancer. dafay fajaale hépatique dafay fajaale jebet dafay faj lu bëri. Mhm. dafay fajit biir buy riir. am na ñoo xam ne seen biir yi dañuy riir vingt quatre heures sur vingt quatre ñuy seere. Mhm. léegi garab googu buñ la ko joxee yow nga di ko jëfandikoo heure boo centré pour sëy ak sa jabar danga nga sëy ak moom normal. Mhm. mën ngaa def ak sa jabar quinze minutes ba vingt minutes. si sëy te doo soo paree doo si am benn effet bu la siy fekk. léegi nag am na beneen garab boo xam ne soo bëggee pour sëy rek mën nga koo naan nga sëy. Ah, bu boo paree rek pour sëy nga naan boo paree pour sëy nga naan boo pour sëy. Mhm. am neen fii yeneen garab yoo xam ne dafay fajaale comme li ma la wax nii. Mhm. muy jebet ak cancer ak yeneen feebar yu bon yi. Mhm. même jalis bi nga gis nii xam nga kortu la. waaw kortu yu ñu sànni nit la ba yaram bi jaxasoo ñu ne la jalis la. mooy dem mooy nel ni comme AVC moo nekk jalis moo nekk hépatique. Mhm. feebar yooyu nag feebari làmmiñ la ak feebari kortu la mhm. suñ la koy raxasal dañ koy raxas ba mu set wecc bu nekkee jigéen la it boo xam ne du yëg bànneex ci sëyam mhm. dafa am garab guñ koy jox boo xam ne bu koy utiliser dafay sëy normal di yëg bànneexam parce que la plupart dafa am jigéen yoo xam ne rab dafay toog ci seen taxawaayu sëy ba duñ soxla bànneex bu seen jabar yi bu seen jëkkër yi di nekk ak ñoom sax duñ yëg na sax nekk neen ak jigéen nekk neen ak góor léegi nag loolu boo ñëwee ci cabinet bi dañ koy traité ba mu set ba pare nag à chaque fois dañuy wax nit ñi ne leen waxul nit ñi ne leen dañ leen di jox garab ñi sëy bay bëgg a dee parce que sëy xel la ak deret nit bu xolam nanguwul du sëy. na ji jéeg-jéeg gis ku ne dama lay jox ki nga te euh, ma pour nga seeg sa jabar ay trente minutes ay quarante cinq waa xam nga loolu sëy bu bëri sax baaxut. Mhm. góor warta sëy sax lu bëri. Mhm. parce que tey góor. Mhm. dafa am deret ju mi bàyyee jabaram buy sëy ak moom. moo tax góor wërta sëy lu bëri am na nag ñoo xam ne yàlla daf leen a nattu fu nu tàllu rek mën leen di sëy boo gisee ñoon lu si bëri buñ demee ba bëgg a màgget dañuy am feebar bu ñuy wax prostal sëy bu bëri prostal la lay jox mm-hmm. léegi nag ñu bëri xamul loolu looloo tax sax ñuy tere pour góor muy sëy sëy sëy bu bëri ba pare ñaareel bi ku la jox dara nga di ko nga di sëy quarante minutes daanu woo demal nga mm-hmm. laaj ko li ma jox lan la boo yéexee tuuti dorog la mm. moo tax yooyu baaxut dañ koy invité nit ñi pour ñu bañ di ko laal. Mhm. ba pare ñaareel bi. Mhm. néew kàttan dafa bëri. bëri waaye li ëpp lu koy joxe it stress si la bokk. ah stress day dafay joxe néew kàttan te góor ñi dañoo bëri ay problème fi mu toll nii ndax lu bëri yombut sëriñ bi réew mi dafa jafe. Mhm. lépp lu nekkoon benn tey fukk la. bu fekkee góor gu ne këram yore dépensam yore njabootam bëgg daw lu mu defee këram ni góor googu mënta mën mën mënta fi ay jabaram loolu yëpp nag nit ñi xamuñ ko mm-hmm. mais ñun garab gii ñu lay wax nii du garab dara lu dut daf lay yokk ndoxu góor pour ngay mm-hmm. mën a sëy mm-hmm. góor bu amul ndox du sëy bu amul deret ju set du sëy bu biiram setu di du sëy ba pare may la doole may la kàttan moo xam nga lekk lu am vitamine moo xam nga ñàkk lekk lu am vitamine parce que garab gi mi ngi am cinquante six vitamines si biir Mm-hmm. comme yow mën naa noon benn infrégan boo xam ne daf lay dolli ay feer mm-hmm. garab gi loolu la daf lay dollu ndoxu góor daf lay mm-hmm. dolli doole te daf lay dimbale xam nga nit ki il faut que muy ut loo xam ne da koy dimbale si néegi sëyam jigéen ñi loxoy kese teewu leen looloo tax nga gis jigéen ñu bari di mooy seen jëkkër yi parce que da ngay gis jigéen boo xam ne day nekk ak jëkkëram te jëkkëram mënu koo tëddee léegi nag jigéen boobu fan la jëm day sonn waaw dëgg la alors waaw bu ñu jugee foofu rek ah, yaakaar naa tamit dañuy dugg ci làmb ji mu nekk affiche yi taxaw léegi. Hmm. Euh, gis nañ combat bi war a am euh, le cinq décembre Papa Sow hmm. naka nga ko gisee. waaw Papa Sow dama waxoon sax duma ma si wax. Hmm. waaye xam naa ki si daan. bis bu demee ba làmb gi jege si. ba bis ba ba ne la suba la ñu bëree. nga ñëw ma wax la kii fanaanoo victoire bi. waaw mais est-ce que mu ngi ñu. non mënuñ koo wax lu tuuti rek. mënuñ koo wax lu dut ni ma gisee nii. Siteu amagum na gàllaaj. waaye Papa Sow moom it gàllaajam dëgër na. na Siteu bañ a hmm. naagu rek. na Siteu bañ a naagu. na bañ a naagu bu baax a baax na bañ a naagu bu baax ndaw la. Hmm. na gën a yokk gàllaajam mu gën a yokk xelam. Hmm. mais aussi mënoo ñoo wax tamit. non mun bu ñu demee ba na suba la nga ñëw ma wax la kii daane man <laughs> xamee neen ma làmb làmb dama siy wax lu bëri. xam naa ko si daane. mais amaana benn affiche su mag bu am la 19 euh, décembre. Boy Niang Tapha Tine naka nga gisee. Boy Niang Tapha mooy la ma waxoon rek. booy ñaa moo ëpp Tapha gàllaaj Boy Niang waaw parce que daf ko ëpp moyen hmm. mbër bu la ëppee moyen daf lay ëpp gàllaaj boo xoolee moloo hmm. ak Balla Gaye mbër mun dajeeg doo nalaw parce que ñoo lay ëpp moyen ñoo la ëpp gàllaaj hmm. te mbër bu amul jàppale day néew doole te Boy Niang guddi yi ñu nekk dafa am ñu koy dimbale te guddi yi ñu nekk dafa am gàllaaj moom it na bañ a naagu waaye lii kat booy naa mooy fi mu dëkk dafa bari xeex. fi mu dëkk fi mu dëkk. dafa bëri xeexante seen biir. Mhm. mais kon bu jàppee que ni kon euh, bi bi la déggee euh, côté Boy Niang moom moo gën. côté Boy Niang dëgër na lool. wala victoire waaye nag gën a non du question <laughs> victoire victoire duma ko joxe lu du suba la. <laughs> waaye dama laa wax na la booy Niang am na gàllaaj waaye fi mu nekk. dafa bëri sarkel bu xaw a salti mhm. mais eh, gis nañ benn affiche tamit bu jaaxal àdduna laay wax. Mhm. mais combat euh, Ama Baldé ak Modou Lo saa yu yu euh, day day am rek après euh, dootul amati. combat boobu waaw loolu moo waral boobu du doom luy gaaw a taxaw. mais jàpp nañ ko le mois de mars. waaw mën nañ koo jàpp mais dafa nekk combat boo xam ne fokki ko tëgg dem jug si boppam. kon bu la déggee kon kii. Euh, promoteur bi foog mu dem jug si boppam du si mbëri de foog promoteur bi jug si boppam. dafa am nit koo xam ne bu la yàlla tegee si yoon ñi di la xeex di la xeex di la xeex di la xeex di la xeex ba dugal la koso. Mm-hmm. di la xeex ba tey bàyyiwun la. Mm-hmm. bu dëggul dëgg lépp loo jàpp day yàqu. loolu promoteur bi la gën a métti gis nga combat bi ngay wax nii. Mm-hmm. promoteur bi la gën a métti. di nuyu nag ñoom ñaar ñëpp. samay wëllëg la daal. waaw mënuma la see wax ku siy daan. mais mais ko mënuma see wax kenn ku siy daan. <laughs> dañ la ànd ñaar affiche. waaw non xam maam nga analyser. lambu comment bu analyser. lambu soo gisee lambu xaw a doy waar. da ngay dem ba bu yàggee sax yow da ngay bokk si biir làmbu du man du ma mbër daf may jox xaalis man mbër du ma jox xaalis. Mhm. mais damay amante kóllëre ak ay mbër. Mhm. li may wax nii si télé laay waxee man mbër du ma jox xaalis waaye damay amante kóllëre si ay mbër. Mm-hmm. benn mbër kese laa xam ne mos na maa jox xaalis. Mm-hmm. te mbër mu mag la. Mm-hmm. bugguma ko wax télé nit ku mag la. te korog ba ma joxee xaalis ba suñ joon ak yàlla tey nit du ko war moom rek mooy ware. waaw moo tax am na yu bëri sama fulla bopp la am. mais damay wax toujours nit ñi ne leen ñi bëgg mbër yi nañ leen di dimbale. ñi bëgg promoteurs yi nañ leen di dimbale. Mm-hmm. mais comment Ama balde mootloo mm-hmm. du combat bu yomb pour mu taxaw sax ba bëree di am. d'accord moo tax nañ def ay ñaan promoteur bi na dem defi ay ñaan. teg mm-hmm. tekki yaramam bi. yëfam mi baax. waaw alors mi ngi noonu ah, kooku mooy ah, euh, Serigne Baye Ibrahima Niass duñ li ñu tëraloon ci Amine jeex na duñ def rek du jox la nga tàggatoo ak mbokk waaw li ñu tàggoo mooy ñu ngi am benn tournée bu ñu war a def le vingt cinq. Ndar. dañuy dem Ndar le vingt cinq le vingt six le vingt sept suñ fa jugee Mauritanie lañ jëm hmm. di ñaax waa Ndar yëpp di leen wax ne leen seen doom seen sëriñ seen xarit moo déplacé pour ñëw hmm. seet leen seet bi dara waralu ko lu dut dañuy gis ne tout le temps ñoom dañuy oo téléphone di ñu hmm. wax kañ ngeen ñi ñëw te mënuñoo si waa Mauritanie yi am leen fa cabine depuis yàgg na depuis 2007 ba léegi cabine baang fa mënuñoo dem Mm-hmm. ñu jaf ne nag kon tey nañ ñëw ñu dem mm-hmm. ñu nemmeeku ji ak taalibe yi ak clients yi mm-hmm. parce que nit boo nekkee ci benn bërëb di fa def ñaan yàlla dafa ngay toll benn diggante boo xam ne fokk ngay dem ci seen biir bu ko defee ngay gisante ak ñoom nemmeekuwante ak ñoom di ñaax ñëpp képp kuy yeewoo yi képp kuy yeewoo Ndar nañ ñi xaar le vingt cinq ñi ngi Ndar incha allah ci kàttanu suñu borom di ñaanal yàlla jaami yàlla yëpp di wax ne ñu ngi gën a jéggalu clients yi ndax lu tax ñu leen di gën a jéggalu mooy ñu ngi ñuy oo ba sonn duñ ñu jot dañuy fekk ñu ne si àll bi wala ñu nekk xal wa xal wa nag bu si nit nekkee dafay jafe pour muy jël téléphone am ba tax na sax yaakaar naa bokkoon na seen programme bi waaye mujjun koon a eggali xalwa dafa dafa nekk loo xam ne def si nit sax dala koy defloo sax na la maa ngi gis sëriñ yu bëri di wax na dañu lay defal xalwa te daanaka dañuy nalaw rek ñun bokkuñ si sëriñ yooyu noonu ñun lépp luñ séq ak nit rek dañu koy matal ba mu ba mu mat di wax ne ñu ngi nuyu waa bitim réew yi bu baax di leen gën a ñaax ñun nekkuñ fi lu dul dimbali nit ñi rek képp kun mën a dimbali si seen loxo bi rek danañ la dimbale wasalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu waa site bi bu baax a baax di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm bisimilah jërëjëf.